jërëjëf mbokk yi bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiiri ak Père Birahim mbokk internet yi wasaare làmb ñu ngi leen di waaye mun a nekk ci réew mi ak bitim réew ci ànd bu rafet bi nga xamante ni ànd ngeen koy wasaare làmb ñu ñëwati rek comme ni ñu leen koy defalee saa su ne eh, ñëw ci écran bi indi leen combat yoo xamante ni dañ leen koy tegal mbokk yi Père waxtaan ceeg yéen décortiquer leen combat bi joxe ci li nga xamante ni mooy xalaatam gannaaw loolu damay bàyyi Pierre mu nuyoo su ko defee nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu dugg si ci waxtaan bi Pierre Birahim maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf may asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu ci seen tur seen sant di leen baal ñëpp di ñaan ci yàlla suñu réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm mbas mi nekk ci àddina bi di lëmbee àddina bi yëpp yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin yàlla na ko fi yàlla jëlee ñu te may ñu jàmm sutura eh, ma ñaan sama kàddu yàlla na fekk yéen ñëpp ci jàmm ku ci am njàkk yàlla yàlla def say poos dal ku ci <laughs> feebar it yàlla na yàlla may la wér waaw ba yéen te maa ngi nuyu ñëpp daal ah. waaw di kontaan noonu nag del siwaat pour toog ak ah. sama doom sama xarit mooy jili ah. may nuyu caméraman yi ñoom Adama ak ñoom Kako ñoom Kako xale yeeg ñëpp ak ñoom Bas ak xale yu ma bokk liggéey bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu. Uh-huh. waaw ñoom Ousin ñëpp maa ngi nuyu yëpp daal. Uh-huh. jërëjëf. temps yi moom dafa mel ni Père boo gisee ni may waxtaanee dama mel damaa xaw a xurfaan. xam naa ni coono beeg climat bi changement de climat beeg yu mel noonu. Hmm. mais tawat bi nga xam ne dugg na ci réew mi di dal ñu bëree bëri ci lébu yi. Hmm. ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ci côté géej géej yu mel noonu. ñu ne hmm. feebar bi ci géej lay jógee. Euh, ban gis-gis nga waaw gis-gis bi de ñaan ci yàlla yàlla na ko fi yàlla jëlee rek. yàlla na ko fi yàlla jëlee parce que doomu dara xajul ci moom lu jàmm rek a xaj. dëgg la dëgg la doomu ah. jàmm rek a xaj ci moom. kon tey jii euh, ñu yéeneente jàmm dégg nga ñëpp di ñaan yàlla jàmm dal leen. loolu rek am solo. Ah. te parce que àddina nii la ko boroom bi bindee. dëgg la ñun ñëpp déggoon nañu fi ay feebaru euh, kii nu feebaru mag ñu yàgg noonu bu yàgg sax dama daan dégg sa maam di ko wax feebar boobu nga xam ne ay duusu la dana am di dugg nit ñi ah. dégg ñu di ko wax euh, xam dama fàtte feebar bi nu mu tëddi feebar bon la woon ah. amoon na fi passé beneen am noonu àddina mooy demee noonu parce que ah. yàlla dafa wax alkamal lillaahi yàlla rek a mat doomu aadama matul yàlla rek a mat foog doomu aadama nag bi ko yàlla bindee foog muy muy de ay tolof tolof dëgg la waaw tolof tolof yooyu nag dafa looloo tax borom bi taala taala wax ne inna laa maa saabiriin ah. man yàlla maa ngi ànd ak way muñ yi kon bu la da bànneex ñëwee santal yàlla ah. sant sa borom baax a baax xam ne àddina noonu la bu la talof ah. talof xamal leen àddina noonu la parce que nit ab nit mag na la juddoo fe da dajeek ay nattu yàlla teggi ko looloo ko àddina ànd muy feebar boobu lu fi ñëw la rek ñaan yàlla mu dem comme mbas mii ni mu amee ci monde bi it noonu rek loolu rek lu fi ñëw rek la lu fi ñëw rek la peste voilà am na foofu jamonoy pest bi ah. ñun su ñoom maam ah. dañ ko fekk daan wax peste muy feebar ñii dee ñu xëy di suuli rek bala ngay suuli bala nga ak si keneen dee ñu suuliwaat loolu anamu tey jeex na yooyu yëpp àddina noonu la quoi yal nañu yàlla ko teggeel ak jàmm rek waaw yal na yàlla teggee ko jàmm rek waaw Euh, mbokk yi am na solo lool gis nga àdduna ni muy bindoo mm. euh, nit ki bu la bëggee mm. da lay waxal lu baax mm. di la di la yéene lu baax di la defal lu baax foo nekk di dégg ci moom lu baax mais suñu borom bu la bu la bëggee dalay teg natt euh, natt yoo xamante ni da xam ni kii natt yu diis na loolu waaye suñu borom ku mu bëgg rek lay teg natt. yàlla nañ suñu borom defal jàmm defal ko mboolemi jullit. su ko defee ñu ñëw ci combat yi. père bu njëkk combat bi nekkoon na ci combat bu gën a neex. combat ne kon xale boo xamante ni mu ngi dëkkoon diggante ñaari tali Grand Dakar. Mm-hmm. Biscuiterie yi. Mm-hmm. Euh, doon doomu Faas. Mm-hmm. dugg si def ay preuve ci làmb. ba yegg si fi mu yegg si muy lagrose mu doon ndaanaan ci làmb. Euh, doon champion mën a bëre. doon bëre xale bi nga xamante ni moo dëkk Parcelles Assainies. di ak Zos. di Garga Mbossé. combat bi nekkoon combat boo xamante ni. Euh, waa WR ñoo ko tëggoon. Mm. mu nekkoon combat bu neex a neex a neex. Mm. père tey combat boobu laa bëgg indi ngir ñu waxtaan ci ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am mooy combat la boo xam ne bii ñaari génération lañu wax ñoo bokk génération. Uh-huh. et puis yaakaar naa sax bu dul est-ce que Garga Mbossé ci sama gis-gis. Uh-huh. Euh, est-ce que du moo jiitu tuuti. moo jiitu xamante du magantewuñu mais moo jiitu fël ci làmp parce que Garga Mbossé man dama ko xam ci mbapat yi te man booba xawma Lac Rose mm. Lac après laa ko dégg écurie Fass dégg ko ci équipe mu dëkk ñaari tali xaw ma sax te xam na ko rek ma dégg ko ci làmb ji ma gis ko nag benn jour daje na ma ak moom euh, booru HLM. Euh, mm. raay ba mu nuyu ma ni ma xool ko ma ne ma ñaa ñu dégg ñaan kii mooy Lac Rose bi ma ko nuyoo rek laa xam ne kii ak mbërë ngi ci moom mm-hmm. dama ko nuyu téye loxo bi rek ma xam ne ak mbër a ngi ci moom waaw mbër googu nag sa loolu nag xam-xam la waaye soo ko xamee ba pare nag mbër ma rek dafay am lu koy complété dëgg lu koy complété nit yàlla dina def ci yow xol xel moo xam ne loo dégg doo ko fàtte wala loo gis xam ko wala lu ñu la wax maanaam nga dégg maanaam nga mën a capté mën a mokkal ma def waaye nag jëfe moo jafe ah. waaw parce que si am ko yàgg ci yombul loolu foog da am base bu tër base bu ko koŋ mooy tax nga am succès yàgg ca. waaw moo tax mu tëll fël am tur parce que écurie bu mag la fële écurie Fass xam nga génn fa am tur dafa yomb. damay wax ne écurie Fass saa yow góorgóorloo nekk fa ndaw mën a bëri tuuti bëri rek am am tur. ñun looloo ñu mënta parce que dañoo fekk tool bi ñu bay ko noonu ko ba mu set. Uh-huh. xam nga ne fu ñu ne maam góor gee fa génn ah. fu ñu ne faga un fa génn ah. fu ñu ne faga deux fa génn ah. mbay gee door a ñëw di jàmbaari fàkk tëdd moom it dégg nga li ma la wax champion yooyu yëpp génn fa ñoom Mbite Njaay ñoom dem social tubaab bu moo gaa yëpp xam nga foofu de ku fa jaar am tur ñooñu ñëpp ñoo juga ñëw ñoo ñëpp ay xale lañ sax non non c'est que jarul xam nga àddina nit da ngay bàyyi ñu waxal la moo gën ngay wax nii laa mel parce que noo fi mel nit ñi xam nañ ko nit jarul ngay tagg sa bopp naan man nii laa mel naan déedéet da ngay bàyyi nit ñi la seetaan te gëm yàlla te xaw wax dëgg dëgg yi ñu xam yow lan nga woon ba nga ci tolloo nan nga meloon moo tax du may wax sama bopp Sadio Camara ngi fi woon ay géej Camara xale yooyu dañu mënoon bëri ay ñoom kii ndem si yàlla si kii euh, Alsane Diakhaté dégg nga Moustapha Gueye ndaanaan bi door a ñëw dégg nga ñooñu ay génération par génération la moom ci la bokk ci génération moom moo ba am booy bu baax waaw kii boo muy booy Garga Mbossé ah. Euh, mag ji gis naa ko mooy man bi ma gisee Garga Mbossé dama amoon benn yaakaar ci moom boo xam ne bii Garga Mbossé dama ne woon ci ñuy toji làmb ji ci la bokk. parce que dama parce que dama ko seetaan ba pat. ma gis ndox toom gis bind bi gis bëre bi ma xam ne Garga Mbossé bi su toppee làmb góorgóorlu jox ak xam na mu waree. lu ci waay lekk da koy lekk. ma ngi gisoon naa lool ci moom. parce que bëri naa mbapat gis ba keroog bi muy daan brise sama mbapat maa ngi arbitré. Hmm. bëri na mbapat sama mbapat fii keroog ñoom Balla Gaye ñoom dafa doon ba ñëw ci mbapat moomu mais ndaanaan la muy ñaari xale nag ñu boole leen ñu génn. ñu gën bokkandoo jamono génnandoo xam nga ñooñu bu ñu nee ba war a daje ñu war a xëccoo ci kaw day neex. parce que mais nag seen combat du yem foofu. waaw bu ñuy ñaanal téwér rek. du yem foofu dañu dinañu mën a daanante mais dañ dinañ dajewaat ca kanam. kon dinañ bëriwaat yeneen combat waaw nañ ñaan yàlla wér ak fekkeek tal rek. mais ku ci nekk boo defaroo defarowaat na nga war defaroo. yàlla musal la ci bépp ndog nag. Hmm. parce que ndog rek mooy téye nit musiba diw damaa bañ diw damaa bañ amul solo. ki bañ te mënul dara mënul dara. xam nga lu am solo. Ah. ndox mi lu téye na nga xam ne mënatoo dara kooku kooku rek a jar a musul. la waaw ah. ay mbokk yi ñu ci télé bi wan mm. paire combat mm. mu décortiquer ko joxe ci xalaatam. su mm. defee ñu dellu si waat ay ca paire. waaw ah. Lac a ngi nii. waaw Garga Mbossé ngi. Garga Mbossé ngi waaw Lac Rose teg pied gauche. waaw Garga Mbossé teg pied gauche. ay ca ñu na. léewtoo jàkkaarloo Lac Rose. ñu ngi jàkkaar léewtoo dégg voilà xam nga Lac Rose du mbër muy riñaan riñaan ak ak ak yooru jëli du benn xam nga kii kii yoru toujours day bëgg rek combat bi jeex mu ne naa ko jàpp moo ko jàppee bëre bi jeex parce que moom genre maanaam jongalekat la quoi maanaam ni ñuy tax maanaam mooy tëq ci ñaari gaño yi jongale la tànk bi loolu mooy forum loolu mooy forum mais loolu nag moo tax mu yoroo nii mu yoroo mais loolu ak song rek du benn song moom day commencé fii ci pooj bi nii wàcc nii ci ci cuisse yi nii wàcc fii ci ci ci ci mole bi nga xam ne sa bopp ci naq bi lay tegu rek nga toll ni ñaar tànk yi dem loolu nag day gaaw ah. waaw parce que ki nga koy defal ki nga koy def waru ko yëg ah. déplacement de gauche à droite tak tak dellu si rek xëpp mu daw si gi nga ne ko coppet loolu noonu lay songe song dañ koy jàng yombul de ah. parce que booy song song mu kaw dañ lay tëru xam nga tëru waaw xam naa mooy lan. mooy daw jël daw jël sa tànk. Hmm. mbaar sa loxo ci kaw déedéet loolu loolu tëru. tëru mooy waa ji ne bëxër ñett di song. nga nga féete ko suuf. loolu mooy tëru. boo déggee ñu ne tëru na ko mooy waa ji dafa ne bëri daw di song si. nga ne wàpp nga ko ci suuf. déedéet déedéet doo ko bloqué. Ah. danga nga naan wàpp ci suuf mu tegu fii. comprendre la loolu mooy tëru. boo déggee ñu ne tëru na ko. Ah. da nga ne wëri di daw di songi gaayan bi. waa ji xool la def un placement da nga ne bëgg ngeen mu wàcc maanaam nga teg mu teg waay yàlla yi fii ci ginnaaw. loolu waaw mu teg ah, fii loolu mooy tëru. loolu boo degee ñu ne tëru na ko loolu mooy tëru. ayca ñu dem ci combat bi waaw ñu dem. ñu dem waaw gis nga père euh, teel combat teel combat bi. Lagrosse dafa mel ni day ci kaw Garga Mbossé. mais dox bi yëpp xam nga lan la. nangul reculer mais da koy wër. Lagrosse. waaw mii xam nga tey lu lu muy wuti mii xoolal parce que xam nga nga ga nu mu tëddee Garga Mbossé xam na ne kii da koy jëli si. parce que ga temps bëri bu yàgg bi. arrangé wul kii arrangé wul Lac Rose. li uh-huh. tax arrangé wul Lac Rose. Lac Rose xam na ne jàppante bi xam gis nga dama lay wax leen gis nga jëli gis nga mbër mu man man di contact. nga nekk ci benn écrit di contact ak ñi mën a bëree waxuma nag nga dem ci benn écrit. di jël nooy neexee. jël ay aadama ay di googu di yenu di daan di daan soo ba ngoon di dem xoolal. boo yenoo kii doosu yenu kii doosu ñu naan tey entraînement ñëpp laa daan. déedéet Uh-huh. boo déggee ñu daan nga dangay daan ñi mën a bëre. Uh-huh. ñi mën a bëre. ñi mën a bëre. am doole surtout. voilà am doole pare mën a bëre. dëgg la parce que mën ngaa nekk sax nga nekk nit ki ci école bi. Uh-huh. wala ci écrit bi. ngeen di contact yéen ñaar. mais fekk na booba euh, yaa yaa ko pour doole sax waaye dalay lakkal. dëgg la parce que ay feemam ak ki mën a bëreem. ak ay ngelaw jom da feebar da da lakkal. dëgg la ku ko ku mel noonu nag mooy avantage bi nag. comprendre nga ma la. avantage bi mooy nga bëri ku am xam-xam. parce que ki nga am xam-xam même boo ko daanee ci doole di nga xam ne kii doole laa ko daanee waaye mën naa bëre boo liggéey leneen lam ma defoon kat bu doon borom doole bu ma ko puloon doole du ma ko daan de daan naa ko parce que dama ko ëpp doole waaye keneen bu ma dajee ku ma ëpp doole wala koo xam ne ñoo tolloo doole bu ma ëgsee fii damay ñàkk loolu du xam-xam xam-xam la beneen yoon bu ma dajee yow bu ma dajee ak mbër bi may bëri naa bàyyi xel ci loolu jeex na ñu ñu dem waaw gis nga waaw Lac Rose ngi daw mu koy topp Lac Rose ngi koy gis nga cokkaas voilà gis nga même gis nga kii ah. gis nga tey ni mu songe ni ba bi génn fële ah. baaxul waaw ah. baaxul déglu ma wax la déglu ma wax la ku ne fot bi nga def song ne la yoor bopp bi génn fële baaxul ñi may seetaan xool leen ci te mën la bëri bopp bi mu génn fee baaxul lagros tànkam yi ni mu tegal kii Garga Mbossé tànk yi ni mu tegalee baaxul parce que déplacement boo gisee ñu la ko jàngal dafa am yoon noo xam ne bu ñu la ko déplacé boo ko taxawee da am doole mais am na noo xam ne boo taxawee doo am doole xam nga ne Garga Mbossé boo gisee nii mu taxawee nii baaxul. baaxul de. nii nii gar kii tamit tànk bi dafa sori. mais bopp bi mu génne fii du yoon. bu fekkoon ne song day wàcce beneen loxo bi fii ci tikki jal loxo bii mu teg fii baax na. mais benn loxo bi fii la koy teg moom li ma la waxoon sànq fa bopp bi teg ci naq bi. dëgg la. est-ce que xam nga wax naa la ko. waaw dama ne song bi bu baaxoon. tey bopp bi fii la koy teg ci naq bi bopp bi waaw bopp bi bopp bi fii la koy teg dégg nga loxo bii mu téye baax na mais beneen bii ci kaw fii la koy indi ci genou bi rek mbëkk bopp bi waaw mbëkk bopp bi ci biiru Gargamboose waaw daal tonni ñaar tànk yi rek tiire ñaari cheville rek doon bopp ñu dem loolu de mais songa bi baaxul kii itam déplacement bi baaxul li mu waroon def de tànk gauche bii mu mëne lay samp ci ràcc droite bi ci ginnaaw loxom gauche am bële mu bal ko fii ci poqtaan bi fii la daal koy wër daal koy wër ndomb takk ko. code ko quoi. waaw jël takk bu takk bu rëy ngi fii. fii xam-xam bu rëy ngi fii. fii tànk pied gauche bi dégg tànk yi doo leen doo déplacé gauche bi. droite bi ngay déplacé. sa sa sa loxo bi droite bi fekkee man pied gauche saa mais droite bi ngay awa loxo bi. wala sa gis nga loxo mais mais droite am bii. moom la war a awoo pë përëgu gauche bii. mais père est-ce que moment bi di Lac Rose di ñëw Garga du doon da doon séntu xeex. waaw fan Lac Rose daw ñëw bëre si. waaw mais Garga bu liiroon combat bi est-ce que du du ci loxo. góosu ah, Lac Rose bi comme ni nga ko wax confiance ko wër ko. confiance wër waaw ba tey loolu lépp mën na nekk. Ah. loolu nga wax noonu ba tey mën na nekk. Ah. ça dépend ci gis nga fii bi ko waa ji jël si li ko xelam may. li ko xelam may loolu nga wax noonu. mën naa nekk. dëgg la waaw parce que faute bu rëy la la la Garga Mbossé la la Lac Rose fii faute bu rëy. songa bi baaxul tànk yi écartement bi ëpp na déséquilibre na mm. dégg nga moom it ni mu déplacé baaxul moom it gis na ni mu déplacé baaxul mais loolu ma wax bu fekkoon ne nii mu yor da koo xool day def day ràcc tànk bi rek code filaat ko aw poxtaan ma ci kaw rek daw jaar ci poxtaan bi jaar ci code droitam bii lay fii lay la aw poxtaanu gauche am bii rek daal dem ñu ànd dem ñu dem gis nga ko mais rasu ba jàpp ko jàppante ne ñu téye parce que fii nag bi ñu téyantee nii rek léegi xam nga lagros ku ci xam na sa bëre morom parce que mbër saa yu jëlee borom avance su mbër xam na mbër mi lan la ma ne c'est rare nga gis mbër moo xam ne léegi amatul ñun bu njëkk da nga daan ñëw ba ci làmba ji di xool xooy koy bëreel man mi wax yow nii bëri naa mbër moo xamee ne mii tey dañuy bëri di daan man bu làmb jaa ngi fees ñi ñaa ngi toog man xama koon laa ci war a bëreel manacé ba léegi waxuma ne kii laa bëreel Alaaji Sarr maa ngi koy nuyu de passage Alaaji ne ma benn waaye bu ñëw mu sàndoo bu dëkk mbur xaw ma ko dafa fekk avance am guy ko rek jël ko. waaw ne jox leen ma ko maa ko man moom noonu la daan def ma jël avance bi man xaw ma waa ji ba bi ñu taxawee laa door a xam ne kii laay bëreel léegi nag booy kenn du ko ci def. kenn du ko ci nangu moo tax may ñoom ñaar xamante nañu ba ba bu Garga Mbossé mii tey. xam na ne kii jongale lay bëree. waaw léegi da koy jéem a xañ jongale bi. Hmm. waaw hmm. jongale da koy jëm a xañ. waaw ñu dem. moo tax mu bal mu daal bal ñaar loxo yi jàppante nag teg ku ne ngee wut. fii nag bal nañ. waaw ñoom ñaar gis nga. voilà gis nga dóor bi dóor bi ban avantage dóor bi ah. xam nga dóor bi boo gisee dóor bi muy def noonu. waaw pour fi ñu ko jàpp mu bàyyi ko parce que mbër dee fois. da ko jàpp fu baax kon ah. daanaka mën naa ni jàpp na fu baax garga mu bàyyi moo tax muy pompe ci biir. yéen a koy tar nga saar bi dama ne la mbër boo gisee ñu jàpp nga war a dóor ah. léegi jàpp nañ la foo xam ne fii fi nga jàpp nii bu waa ji bàyyiwul bu ko nee di baax ci yow léegi lenn moo la ci na da ngay assurer sa taxawaay ba sa taxawaay baax parce que jekkoo taxawaay di dóor tamit danger la jekkoo taxawaay ba pare naa da ngay dóor jël bu rëy rek la leen indil moo tax boo demee ba war a dóor nag da ngay fexe bu téye ba mu dëgër ba pare taxawaay taxawaay bu dëgër ba xam ne bi taxawaay bi dem nga door a commencé wàññi nag mais fi ngay wàññi mooy da koy dóor foo xam ne fii boo ko dee mu bàyyi fa mu téye nga mën a jaar ci buntu ba dem parce que ba dañ koo tëj parce que bi tëj nañ ko nan ngay def léegi fu nga ubbi ko nag da ngay foo dóor ñaari yoon ñetti yoon mu bàyyi nga jaar fa buntu feeñ. buntu feeñ. ayca ñu dem ñu dem waaw gis nga. gis nga garab mu koy pompé. mu ngi pompé waaw gis nga. mu koy pompe parce que léegi moom ko loxo ba téye na. waaw day day fayu. voilà day fay gis nga. gis nga day ñëwaat xam nga lagros gis nga ko mujj gi léegi lagros. taxawal téel téel téel téel téel. lagros fii amoon na kor bu baax. fii xool lagros. te pourtant dafa dóor garga moo si ay coups yu dal. dama ne fii gis nga fii. mu daw dafa xool lagros daa xamul nu ñuy koree mais fii. kor bi kor bi kii la kii waru ko nangu. garga mosoo kii déedéet garga mosoo nangu kor bi. taxawaay bi baaxul. day kor fermer poqtaan mi ràcc tànk bi doon épercule menton wàcc. mais moom ci kaw la xoolal fa mu ko xool xoolal kurpeñ bi fa mu ko jëlee. ci ko ci ci non kor nag soo xësee kor nag. gis nga nag soo xësee kor nag. kor. waaw boo koree bu soo kor la boo koree da ngay fermer poqtaan bi ba wàññi sa poqtaan bi da nga koy fermer mais loxo bi fi mu ko xàccee nii. croisé lay wut mais da ko fii lay jóge nii lay dem mais doo def nii dégg fii lay tafu ci poktaan bi kor nga ba mu dëgër tey ba mu dëgër ah. ràcc sa tànk bi léegi dóor uppercut manteau. mooy comme ni Modou Lo def Eumeu Sène. voilà noonu la ñuy coré kor dafa am yoon benn tànk. waaw yoon jàpp. téye ba mu dëgër boo foog nga téye kor ba mu dëgër. nga wàcc soo wàccee nag ñaar tànk xam nga day taxaw day taxaw dëgg dëgg dëgg. Ah, te kor bi dëgër na nga former sa bopp booy former kor kor itam ah. doo ubbi sa bopp taam comme ni mu def nii. xam ne fii dafa war a fermer poqataan bi fermer poqataan bi mais laaw bi baaxul. laaw bi baaxul parce que laaw bi temp na mën a dóor te temp bi pour mu jot ko day joxe léegi fii ne tey day kor taxawaay bi baaxul nee naa la boo jàppee ba nga def action bu baax xam nga léegi yaa mooy dégg. nee naa action bu baax pour nga def ko day fekk sa taxawaay baax. nga am taxawaay yu wóor. lii nag la booy mbër yi bari jàngul taxawaay lii gis nga ñàkk taxawaay taxawaay bu dëgër ba baaxul. moo lay indil nga jekk ba pare ñu daan la nga jekk ba pare war daan fa daanu. loolu moo koy indi. moo tax da ngay def taxawaay bu baax ni taxawaay bi baaxul. dégg nga moo tax dafa waroon indi pied gauche bi mu jëlee mu nekk ci kanam benn bi ne ci ginnaaw mu fermer poqetaan bi uppercut bi fii lay jógee fii la euh, corps bi uppercut bi mu def fii lay jógee ñëw war a ko menton fii lu mu fi laal rek mu jeex fii lu mu fi laal rek bëre bi jeex tàkk loolu moo doon dem moo tax def ko mais tam bagaar bi lañu dafa ne rek naa bagaare parce que waa ji da ko xam nga ñoom bëre yi moom bu nit ñi yuuxoo ñu dóor kii yuuxu rek seen jikko daal di giir dootu ñu indi xam-xam xam lu ñu indi dañuy indi rek ne ah dara kii xaal dootu du ma gënumaa doon guerrier rek waaw foofu la ñuy defee erreur ñu dem ñu dem waaw ah, gis nga tàqalikoo nañu léegi gis nga gis nga fii dana ma dafa tekk teel teel teel dafa waroon xool gis nga nga day dóor waa ji bëtt ko bëtt bi tam mooy baaxul gis nga jël bi jël bi nga jël nii xool xam nga la dafa xeex xeexu kaw loxo yi daa ne ci kaw gar nga daw paquet dafa waaw daan noonu la déggoo ma ne dafa xeex xeexu kaw leex ca kaw la kaw mu gëdd ko ñu waaj gë arrière ñaari yoon gëdd mu ñëw wàcc gis nga wàccee itam song mi loxo bi baaxul fii la war waroon ñëw. moom Garga Mbossé waaw fii ci tànk bi mu yóotu bële loxo bële góosam bële. waaw góosam bële ci poqtaan tànk bi la war a ñëw fii fii la war a ñëw moo tax bopp bi fu mu war a ci naq bi. ci da ko doon tànn rek góor suuf mu dem. parce que songam kaw la def dafa xeex xeexu kaw. ci suuf yëpp libre. bi muy xeex yëpp bàyyiwul xel ci suuf. dëgg la boo bàyyiwul xel ci suuf nag boo xeexee ci waa ji bu la bëttee da ngay xool fi ngay tëdd moo tax song mii moo baaxul. ñu dem ñu dem kàggu. waaw gis nga ñu lay dóor. waaw lay dóor ko. waaw da koy jëli ba tey. da tey ñu dem. ñu fii jàpp nañ. Hmm? jàppante nañu gis nga. léegi ñu wut mu wala ah. moment bi xeex bi takkar naa si la. xeex bi takkar boobu ñoom ñaar kenn ku ne sa yaay yaa ngi wane sa sa jikko wan sa mën ko quoi. waaw léegi nag ñu ngi xeex voilà. ñu dem plaqué mu ngi dóor. waaw gis nga. gis nga garga xoolal ngàdd xoolal ngàdd bi lak mu ngay dóor moom dafa topp xeex bi xoolal xam nga la delloo baax na waaw foofu Lac Rose dafa mujj topp xeex bi waaw dóor na waaw gis nga dóor bi gis nga dóor bi daf ci am coup yoo xam ne téel téel téel lépp booba la garga mboosee ngi téye waaw moom mu topp xeex ba ca kaw yaa ngi dégg waaye moom mujj gi xoolal xam nga fii erreur bi fi gis xam nga mooy lan waroon topp xeex bi ba fàtte bëre bi moom Lac Rose waaw parce que bëri bi da cee bokk dañ ne bëri dóor. dëgg la kon ñaar ngay boole da ngay boole bëri xeex ak bëri fu bëri dóor fu xeex bi jot nga xeex fa fu bëri jotee nga bàyyi xeex bi te bëri. dëgg la est que d'accord nga ak man. d'accord loolu moo doon yoon mais nag mujj gi xoolal énervé na ba topp xeex bi topp xeex bi topp xeex bi ba gis nga ñu dem. ay ca ñu dem. waaw ah, gis nga voilà Moussa waaw da koy da koy paxate xam nga lu ko waral. daal si gi kaw topp xeex bi topp xeex bi ba xool fàtte ci suuf. loo xeex xeex ci kaw jiili fàttalikul ne ci sa suuf la waa ji jëm. te bëre bi ci suuf lay jeexee. moo tax mbër loo xeex xeex jàppal jàpp bàyyil xel ci sa tànk ci suuf. loolu loolu mooy loolu mooy loolu loolu mooy mbër moo tax gis nga mujj gi li mu ko yóbbee mais yii nag bu naree defaru day dellusiwaat gis nga xoolal jëli bi ñu ko daan. jëli bi xam nga amul benn werante xam nga kii amul xaaral arbitre. dama ne lii mooy wëlbit gàng. lii amul xaaral arbitre. dëgg la. wala nga ges say siis naan xaaral ma woo fii koy laaj siis kenn fii amul laaj siis yow mi fay sa ñaar téeméer wala fay sa ñett téeméer wala fay sa junni toog di seetaan di nga toog naa nañ xool télé ku daan doo ko xool moo tax yii lañu war a jël yii lañu war a indiwaat ci làmb ji hmm. bëri muy jële bu leer nañ amul xaaral arbitre loolu mooy yoon waaye toog di xaar arbitre jëkk naa teg tànk baar am na ñetti yu nañ ko puusal hmm. puus na ko trois fois wala amoon na benn avertissement ñaar avertissement boo waxee ñaar règlement la règlement boobu yooyu du règlement règlement yeneen règlement football règlement kàtt ak judo yooyu yooyu bokkul ak suñu bëree ñun suñu bëree cosaan la ci ñun kon lii la jël la ñuy wax di kon amul benn werante dëgg la waaw gaz nag kii nag jël bi leçon bu rëy la def xam xam nga la la dafa topp xeex bi topp xeex bi topp xeex bi xeex bi fàtte ci suuf kii itam mujj gi mu bëri bëri mag mooy waaw mu jigi féete fa suuf rek ma xam ne man ci suuf rek mu bàyyi ca kaw mu fanaan ci suuf bi mu daanee maa bàyyi xel bi mu toogee ci plateau bi hmm. ñu ne ko bëre bi nga bëre ba jël ay coups yu metti ci combat bi mu ne Lac Rose dafa ñëwoon pour duma ma mu ah. ñëw pour daan ko ah. kon kay xam nga ne xam nga man maa moom gisee wuyu waaye lool la wane loolu la wax xam nga moom gisee wuyu gisuma ko gisuma ko waaye loolu la gis nga nag li li ma jàngat moom la tari nii te yàlla xam na ne gisee wuñu waaye nii la parce que xeex dafa nee naa la xeex dafa am foo xeex moo la fay war am na foo xam ne bëree la fay war mais boo tolloo ci xeex xeexal foofu mais bu bëri jotee nag bëreel foofu nag moo tax dafa am buntu xeex nga xam ne xeex la koy may waaye bu xeex paasee rek dégg la koy xam ne fii da naa naan xeex bi fal te bëri Lac Rose mi mhm. ak Lac bi ñu gis bi mu toll nii mhm. ça fait ci mbër boo xamante ne écurie Fass la nekk am fa cër. am fa tur am niveau bu mu tolloon ci làmb ay moromam yëpp dem nañ bàyyi ko fa. lan la war a mën a defaat ba ñëwaat ci làmb moom Lac Rose. waaw xam nga nit booy wax ci moom it da ngay wax loo xam. parce que tamit mag ñu bari dañuy yàq seen respect. dëgg la nii lay jox cër mais yaa yaa yaa yàq cër ba. dëgg la ni nga yàq cër ba mooy ngay wax loo xamul. dëgg la mu toog seetaan la dégg na paa bi de xaw ma këram xamul sama kër. ne li mu wax mais dégg naa. dafa amoon gaañu gaañu. waaw déggoon naa loolu àdduna bi yëpp jotoon na. waaw loolu man noonu ngeen ko dégg ne laa ko déggee. ba waa Fass yóbbu ko def opération. Euh, France après mu dellu si waat. waaw loolu sax moom moom de man daal man daal. Euh, information waaw yéen di jot yéen xam nga internet yéen du ngeen dégg lu ne. man nag déggu woon sax man waaye déggoon naa daal amoon na gaañu gaañu. gaañu gaañu nag. ak sport ñoo ànd. muy football bi muy karaté bi muy judo bi lépp ku ci nekk ci la nga yëngu ci la la ndox di fekk mais ndox nag euh, da ngay faju da ngay dem defaru parce que technologie bi ak médecine bi àgg na foo xam ne fii léegi boo am ki mënta faju mooy ki yorul dara mais ki yor xaalis boo demee rek faju joueurs yi da ngay gis ku damm damm bu talit dem teg un mois deux mois mu dellu soit yëfu jow dégg nga loolu daana man mi am naa genou uh-huh. doon entraîné gaañu genou bu metti uh-huh. dégg nga ba ba daan daan naa ñaari combat yoo xam ne li ma daan genou ma daan mooy contre ma yara faal bi ma tegee tànk bi fii taxawee bii di fauché beneen bi genou bi ne karaj ma toog kenn xamul sax lu ma daan moo tax nit day wax lu ma xam ma dégg ci benn waaye saa naan ah, ca baat ba la ko galgale galgalu baat fu mu amee galgal kay tànk tànk la hmm. waaye galgalu baat fu mu am man kay maatoon ni tànk bi teg fii taxawee tànk bu bon bi di faussé di faussé tànk beneen bi jeune bi déboîté ma toog waaye kii te ñëpp te kooku su ma leen waxoon turam yéen ñëpp xam ngeen ko génn naa dina yàlla na ko yàlla yërëm hmm. waaye tey jii bu ñu ko laajee lu ñu ko waxee da ñëpp dañ defee ne ku am xam la ci bëri ku waaye dana ca ko galgale xam at batu gaat amul fu mu am yàlla na ko yàlla jégal jégal ñi dem ñëpp moo tax gis nga gaañu gaañu defarwaat rek xale bu ndaw la demagul fenn uh-huh. yàlla na ko yàlla teggal natt bi yàlla del may ko sutura moo del si at bu del si parce que am na jom am na dëgëraay gi déggoo may ba njëkkee daje maa ngi moom dama ne bi ma ko nuyoo rek laa gis mbër gi ci loxo bi rek la ma nuyu ma joxe mbër gi hmm. kon champion la dose kii tamit waaw Garga Mbossé tamit euh, Garga Mbossé it na gën a defar taxawaayam waaw parce que euh, wax dëgg yàlla am na taxawaay ci biir làmb boo xam ne bii moom it bu góorgóorloo fu lu waayoon la mën a lekk ci mbër war na ko mën a lekk mais nag ba tey dafa am lu des. moom Garga waaw dafa am lu des. am moo des. li des boo ma ko laajee xëy na naa ko parce que mooy mujj arñe bee des. arñe Garga Mbossé. bi. arbitre sifflé ma dox ci sa kaw na xoolal indi la nag indi la badar. waaw ñu ko ko koy wax ah, kon boo koy xam nga ne kon kon kon inventé ko. waaye dama ne arñe bee des. dafay mën nit ba pare di may temps bu bëri lu yàgg yàgg. di ko may temps ba ko. di ko may temps ko am confiance loolu moo di yoon mais. am na ci ñoo xam ne ñii ni li mu mën ci bëri ak taay bu ko yàlla bu entraîné am gëm am gardam am préparation fatt boppam ci kaw ci suuf dox ci yow day naan bari làmb yi mais li muy may temps bëri maanaam bëri daal daf ko na na na yokkaat kii bi rek. na yokkaat liggéey bi maanaam gën a ñëwaat ak arñe bi arñe bee des. incha allah mais champion la. ci champion ñoom mën nañoo defarwaat ñëwaat yàlla nag li ci des borom bi rek a xam ku ci nekk fa sa wërsëg nekk yàllaa xam fa nga koy lekkee parce que seeni nawal rek a nekk ci làmb ji te mënuñu leen waaw jërëjëf mbokk yi Père Birahim Baye Djily loolu lañ leen jàngat làmb tey mm-hmm. euh, damaa soj nag soj naa trop euh, di jaajëfalaat Père bu baax a baax a baax waaw jërëjëf àddina euh, Djily noonu rek la yaa àddina garab bu ci tooy di wow dëgg la àddina yàlla nii la ñu wér ak wéradi dëgg la mën ak tëli loolu rek fi nekk waaw tey nii la daan sojj ba du tey ji da nga daan ñëw fii mu animé ñëpp reetaan kontaan sawara man mii tey jii bi may ñëw damaa ñëw rek. waaye tam kii uma sawara waaw sawara waaye nag looloo ko àddina ànd. ndeysaan la loolu nañ ko teg ci loxol su boo xam ne looloo ko àddina ànd. nit ki day sawar tey bu subaa mu tayal. waaye nañ ko teg ci nem cadre borom mu ñu teg de doomu aadama ñu ko teg la mais dafa am loo xam ne lii ci àddina nañ ko moytu hmm. di ko ma di ko dénk sama bopp di leen ko dénk di ko dénk ñiy seetaan mooy nga nekk di sa dal loo dal nga defe nit la ko teg wallaahi loolu dara nga defe nit la ko teg boo gisee nit mu xool ko mu xool la ko fas kanam sax nga ne ah boo dee moom a liggéey ah. nga dem ci benn jibar mu sànni péta am ne la waaju xees ji wala waaju ñuul ji wala wala waaju njool ji wala waaju gàtt ji wala ku sew ki wala ku am yaram ki dégg nga rek nga daal koy féetale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 cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg gën